nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 77 712 44 71 ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji ndax tàmbali na te ñu fas leen yéene andil ma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul te mooy wéyale ndénkaanam loole mu dénkoon mag ñi euh, guddi gi mujj fanaanee jolof ngir ñëw njaareem te démb ñu andi woon muqadima bi maanaam tàmbali bi muy woote bi mu woote woon ba ñëpp wuy si mu ne leen ñëw leen ñu waxtaan kon loolee mu leen bëggoon a dénk nag fii la tàmbalee te mi ngi tàmbalee ci na ngeen ragal yàlla subhanahu wa ta'ala na ngeen ragal yàlla subhanahu wa ta'ala na ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne te nangu koo topp moom sunu borom daal ne na ngeen nangoo liggéey tey bañ a yàq na ngeen fonkal julli juróom te di ko defee cim njàpp te di ko defee ca waxtu wa te di ko defee ca jàkka ya nangeen mo ma fonkal njàngum alquran te bu ko wutal ab ab na ngeen ma fonkal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te bu leen ko wutal ab ab na ngeen lewet te tabe na ngeen woyof te am fulla na ngeen am jom te am kóllëre na ngeen gëm yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama te sopp ko na ngeen moytu ak tooñ tey jéggale na soppante te nangoo toppante nangeen ngeen nangoo muñ tey rafetal seeni njort nangeen yaatal seeni gannaaw te bëri yërmande na ngeen mën a muñ te am kersa kon des na waaye incha allahu bu ëllëgee ñu mottaliwaat ndénkaan yee ci des te lépp mi ngi tënku woon ci leetar boobu bi nga xam ne nii Euh, dafa am ko ñëw jox ko Cheikh Mouhamadou Mountakha sëriñ bi ne nañ ko yaatal ndax yàlla na ñëpp déglu ko rawatina taalibe yi kon ci loolee la ñuy barkeelu ngir bëgg taalibe yëpp man koo déglu kon ñoo ngi ñaan ku déglu xikma bi itam mu jottali ko euh, ba ñëpp déglu ko mbokk jullit yëpp mën cee jariñu ci barkeb Sëriñ Tuubaa ku ko def yàlla na suñu borom dolli tawfiq ñoo ngi yéegal mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp rawatina na waa association xikmatul mi ak képp koo xam ne ni yaa ngi safoo ma bi waaye rawatina ñi nekk ci groupe xikmatul yawmi yi li tàmbalee euh, numéro 1 ba 5 dañuy waaj a siyaar ji Cheikh Mouhamadul Muntaqa afisahullahu waraa dimanche le 9 février 2020 incha allahu ñoo ngi ci woo ñëpp nag ndax euh, bëggoon nañ ko def ci màggal gi mu xat moo tax ñu bëgg ko def gannaaw sëriñ ba ñu santoon liggéey bi ba mu agsi fii yàlla na dem siyaare ko gaaral ko liggéey bi fi mu ci toll mu dolli noo ñaanal ndax mu gën a jëm kanam kon képp koo xam ne nii bokk nga ci association xikmatul yawmi wala nga bokk ci groupe bi xikmatul yawmi wala nga bokk ci beneen groupe sax wala ci beneen réseaux sociaux yi tey dégg xikma bi te safoo ko ñoo ngi la ci woo nga ñëw teew ci incha allah ñu ànd ko dimaas le 9 février 2020 koo xam ne ni tamit sa tànk diis na wala nga sori ba mënoo ñëw ñoo ngi ñaan Euh, la nga xam ne nii kat boo gisoon Serigne tubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha da nga ko ko jox boo ñu ko joxee ñu joxal la ko ko ñoo ngi ñaan kon képp ku nekk ci groupe Hikmatul Yawmi yi gën gaa gàtt nga euh, joxe ñaari téeméer ñu boole ko addi yi ñuy dajale ñun waa association bi ak euh, ñi bokk ci liggéey bi bu bis baa ñu jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha afisahullahu wa raa te lu ci waay defit dana ci jot ndax dégg naa ci Serigne Moussa Sëñ Abdul Xaadir de mu ne Sëriñ Tuubaa daana wax mag ña ne leen addiya yi dee leen ko jël waxoon na ko sëñ Masamba ne ko wax leen ñuy jël nee ak gàmmul ak kooxoon sëñ Masamba sëñ moo toog nettali ma ko ca Italie sëñ Masamba ne ko kon jël ci la mu ne ko waaw jël ci la ndax fii kat fi jël foreef ko te lees fu du réer daal ne ku ñuy wax sëriñ Mori Gay waxoon na sëriñ Tuubaa ne ko dama bëgg nga boole ma ku wér koo xam ne ni bu ma andee te di ko di ko teg ci loxoom sëriñ Tuubaa ne ko fii de léef lees fi jël fores ko te lees fi for du jaawaloo du réer kon nag sëriñ bu moom nga teg ko bat ak ñàkk koo teg bat boo joxee sa addiyee tamit dana ci jot suñu soom sëriñ Abdu Xaadir daal ci tey de ku ñuy wax bàyyi sëriñ sill euh, ku ku mënoon a woy la sax daana woy sëriñ Tuubaa nee dafa am taalibeem bu faatu mu ñëw bëgg koo wax sëriñ bi fekk mbooloo wër ko muy tomb mu lool nee na parce que dafa may ko mun a naa tëbu ci suuf si rek waaye waxu ko dara moo demee def ko ci bàmmeel ba nee na bi sëriñ bi duggee ci biir daal di woo soxna Fatja ne ko sëriñ de ñëwoon na fi di yëgle taalibeem bu faatu di ko sàkkul ay ñaan xam nga ne kooku kon eh, yaakaar naa ne eh, joti na fépp moom sëñ Moussa Amsa Abdou Khadir it waxoon na ne eh, soxna Xari Penda nee na ci waa Barsàq la bokk ñoom waa Barsàq sëñ waa joxoon na leen ay bool yoo xam dafa leen waxoon ne bu ma nekkatee ci biir te xat. bu ma nekk bu ma xatatee ngeen am te jógeen ma bëgg a wax wax leen ko bool yi buñ agsee danañ ma ko wax ndab yi lañ ko daan wax nee na ndab yooyu sax sëñ sëñ Abdou Lahad yoroon na ci benn kon nag ñoo ngi ñaan ku bokk ci association Hikmatul mi te bëgg a dem te bëgg a bindu nga woote bu ko defee ñu mën laa bind ndax ñu xam nombre bi dem balaa booba waaye ku mënta demit te am sa ñaari téeméer wala lu ko ëpp moo xam sa milliard nga am wala sa million sax ndax sëñ Tuubaa loo fa yóbbu xaj na fa waaye dara du fa tuuti nga joxe ko bu ko defee ñu yóbbaale ko ci incha allahu ku ci bëgg leeral da nga woote ci numéro yi ñu orienté leen numéro bi ngay woote ngir bindu euh, ngir bokk ci ci ci siyaar bi wala numéro bi ngay dugal sa addiya ngir ñu joxewaale la ko incha allahu euh, ku ci bëgg leeral nga woote ci 77.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 in uridu illa al islaaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh